mbokk yi suivre ci Leewtoo TV nag tey ñu ngi biir Pikine fas yéene nag laaj parce que coow li daa bëri ci diggante Ama ak Modou Lo combat bi kale na wala kalewul fii ñu ne mooy koñu Ama Fall buntu kër ba la ngay seen mooy buntu këru Ama ñun nag ci buntu kër bi lañ ne jarul ñu dugg ci kër gi léegi dañuy ñëw dañuy ñëw rek xam nga laajte nit ñi ba xam seen xalaat kii defe naa mbër la te jarbaatu Ama la champion. waaw kooku wala. waaw moom la léegi dama lay laaj. coow li daa bëri ci diggante Ama ak Modou ñu neen ko ragal lii nan lu xew. ah ñun ragaluñu kenn rek waa si promoteur yi rek si promoteur bi rek nanguñu kenn rek booy fay prix da ngay fay prix jaar prix jaaru ko waaw prix bu mu fay moo jaaduwul lool kase la ñun moom ñun doomu mbër la bari mooy métier am xaalisu làmb lañ ko ngéntee bu bariwul du def dara bëre moo ko mën a may waaw ñoo far waa waaw ba tey ñu dem rek waaw ñu ngi koñu Ama Baldé sama gaay maa ngi leen ziar góor Jacob Jacob ci loone ba am nga jàmm nice góor turbi bi man Pablo li ñu fën di nag benn laaj la sénégalais ñoo bëgg a xam ne nañ da ragal mut Lo est-ce moom mooy ragal ah moom lañ déggoon nag promoteur bi di yéen a des ñun pare nañ depuis boobu hmm. waaw bépp parcelle lañ pare lu tax jëlu ngeen avance bi ko waaye déggoo li ma la wax réglage rek bu ndaw ñu pare waaw am na solo Jacob waaw Babs. Sakob ci loo ne. maa ngi nii rek. Sakob daa mel ni am nga combat de. waaw daa combat kay. yaakaar Mbagnick. Mbagnick Kaïré. waaw. loolu dana metti doomu Boy Kaïré ak doomu Jules Baldé mais euh, su ma la laajee ci Ama ak Modou Lô. kale bi combat bi lu ko kale ragal la wala xaar wala lan la. non léegi mu taxaw léegi rek bu taxaw incha allah. Hmm. waaw. Ama su ragalee Modou Lô dañ ko war a ñuus. Hmm. moo ko topp di ko tëkk ayaat. ñu jox ko avance pour lan bu koy delloo. Modou Lô waaw baax na. <laughs> yàlla baax na à suivre. mais est ce que Modou man neex naa defal bagage. Hmm, ah man lan la ko waxoon prix bi mooy gën a gaaw si combat yi. nag gars yi jàpp loolu rek. Hmm. Hmm. am na solo sama waa ji <laughs> maa ngi lay bëgg sant yàlla rek. <laughs> gars yi nañ naar nga de naaru fan. non dañuy tooñ rek rek li may dem Mauritanie bari rek. muy nuyu waa yëpp mais Ama Modou no ko gisee. non lamb jooju loolu du lamb. Badou ragal dafay dugg ñun mosuñu gis ragal sax ragal mu ngi États-Unis ñun ñu ngi Pikine kon xam nga ne kon sori na ñun pare pare wuñu sax Modou Lo du dara hmm. Modou hmm. bis bu ko jàppee nga xam ne du dara day nappee rek day nappee <laughs> rek <laughs> kon ba tey <laughs> ah ah maire bi waaw kan kii bëgg naa la maa ngi fi rek ama ak Mourou dégg naa waa Pikine léegi dañuy dellu avance de Modou Lo de bilaay mu dafa waaye bu ñëwoon na xam de. bilaahi. Ah, moom kay nee na pare dégg naa ñu ne moom waa këram pare. bu yàgg de bu rek ñu pare lañ waaw. kontaan ci yow. maa ngi la kontaan. Zil de tey koppati la maye. Zil tey koppati la maye toog ci këram di féexlu. balaa ma dem ci Zil salaamaaleykum maa leen di nuyu yaay booy. non xanaa kon yéen li ñu ragal li ñuy wax ci ragal Modou Lo daa bëgg doon dëgg daa ragal <laughs> ragal ñu Modou parce que koñ bi ragal juddoo fi waaw. Ah. Ah. yaay booy da ngeen ragal Modou Lo siyaar naa la. <laughs> Modou nag dégg naa daa bari bagage de soxna si bul daw. maa ngi delloo siyaar. Hmm. waaw di leen nuyu. bu baax a baax. Hmm. ragal du juddoo ci koñ bi. Ah, lan moo tax kon mënu ngeen a lekk avance bu Modou Lo sax xale yu ndaw yi sax ragalunu hmm. boo xoolee koñ bi sax xam ne ñun ragalunu ragal amu fi daal mukk hmm. ah. loolu la wax mënu ne fi ragal amu fi ba tey ci Pikine Adja bul daw kon kaay soxna si ñu ngi laaxu de maa ngi lay bégg ñu ngi daw lay bégg da ragal Modou Lo yàlla hmm. ñuy xool ci Modou Lo bañ koy ragal kon lu tax lekk ngeen avance am bañ a lekk ni leen ko lekk de bu soobee mu rees ak jàmm di lekk mu rees wax lii maa ko wax kaay ñu dem Zil a ngi nii toog moom tamit di kilifa ci Ama Baldé Zil coow li bari na cent millions quatre-vingts millions nañ ko lii ñu ne da a ragal Zil bu dee ragal am na kañ ngeen ragal ginnaaw mu la nuyoo. sant yàlla rek ñu lay fay sant yàlla jur sant bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Atem Mbàkke yàlla yàgg te wér sant njaboot suñu fàllu gi yëpp ñu lay fay baax waaw loolu mbiru promoteur bi la promoteur bi moom bu ko bu ko décroché lan moo tax mënu ko décrocher. ah si moom la rek xam na xëy na poosam mu eggagul foofu poosam bu eggee foofu dina ko décrocher. yéen lu ngeen ko laaj. waaw li ko laaj li ñu ko laaj yow li ngay wax par weer li may fay ko bëriwul. Ah, loo am doo ko wax de. ah kay cinquante mille ko par ñu ko trente mille ko laaj. trente ngeen ko laaj. waaw. ah man de dégg naa ci samay gëstu ñu ne fay na leen quatre-vingts millions ngeen ne ko boo amut sans dun bëri. Ah, li nga dégg ah nga dégg kon baax na man dégg gu ma loolu de. waaw léegi Modou moom da ko ragal kon. waaw ragal moom bu fekkee loolu am na moom promoteur bi bu juboo si ñun rek dina xam ne ragal nañ ko ragal moom mun nga toog sa kër ne da ko ragal na nga waaye buñ juboo si moom dina xam daa métti affaire de dégg naa gars nañ dëkk ko yom na waaye lekk avance am ak a jafe. waaw loolu de gars koy wax rek waaye moom hmm? ku tax jigéen ku ne ku tax ngemb ku ne ah mun a lekk sa avance. ba ci Modou Lo ku ko ëpp sax yéen ngeen yaakaar daan muudu yomb na. Bomboy si ma joxoon daan ko naan ay muudu. kon muudu da ngaa ne lu yomb la ci yéen bu bëree ji amee. daan ko daan ko day yomb si ñun muudu mooy kan ah, nit lu mu yore ñeent tànk wala tànk comme comme ni ñu la yore ñaar tànk ñaar tànk la yore ñaar waaw pour daan nit ki nag loolu doomu aadama. kon daal fi mu nekk nii yéen promoteur bi rek ngeen di déglu. promoteur bi la ñuy déglu waaw. mais su dul muudu bu ñu leen keneen ngeen jël. ah parce que Modou ku ñu jox ñu jël. Tapha Tine da dellu ci moom. Bombardier ah Tapha Tine ah Tapha Tine nax nañu ko daan koo pare na xaar retour bi. dañuy jël Bombardier Gris Bordeaux wala Modou loo ñu musul bëre bëre ñoom moo gën a saf. Tapha Tine Tapha Tine ñam nañu koo pare waaw Bombardier jël Bombardier la ñuy jël wala Gris Bordeaux foo ñam leen waaw. lu bees daal jaar nañu fa échec ñu ko bëgg jaar xool waaw. kontaan ci yow si. mere la si yow. loo tax nga mere ma. foo ma fekk jàmm ma micro maa sonn si micro bi te doo ma jox dara sa patron bi yow nga dégg na ko dégg ñii bu ñuy ñëw nga leen di jox dara ñu ñëw jox gars yi gars yi wax wax bi dafa metti Ndiasse yéen daa mel ni xarañ lu waa des arènes ñi ngeen ko de. non du question ragal sax. lu tax lekk ngeen avance am Ndiasse. non xam nga ne Ama Ama yees Ama plus de deux cent millions. man mi bu ma ko amoon. dama koy jox yellool na ko quoi waaw. kon daal la déggee problème xaalis moom moo kale affaire bi. non du question problème mu xaalis. affaire du question problème mu xaalis affaire bi problème de palmarès la waaw. kenn waxul Ama fi ne def fi loo xam ne lu ne gaañ la Ama dafa def ñëpp gis Ama def preuve waaw te Ama xale bu ndaw la te balaa nga xam ni Modou Lo dañ ko ragal wala ragaluñ ko combat bi taxaw. maa ngi lay bëgg yow. waaw ñu ngi sant bu baax. tur laa tudd. Malick Malick Ndiaye waaw. Ama gaa yi ma naan cré crépin la mooy crépin. mooy star rek. waaw mooy star sa booy bi de dégg naa day daa xaw a tiit moo tax nangu ta lekk avance. moom fu tiit nekk sax bokk fa. Hmm. waaw doomu gaynde la fu tiit sax nekk nekk sax bokk fa. Hmm. Modou a ne ama même si sa biir kër sax xanaa mën na ñëw toog foofu. Hmm. ci biir kër Modou. waaw parcelle sax amaa ko moom ci boppam. parcelle amaa xaw ma dégg na ma xaw ma déggu ma mais sax amaa ko moom. waaw te jaajëf. gaa ñu tëjee ko fii ci ataaya ji du mën a ñàkk ñoom ñu ngi seen baraada di xiim salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar. yàlla si. ba nga jàmm. waaw macha allah waaw. coow li daa bari fi mu nekk nii. Ama Modou Lo ñu ne waa Pikine ñoo ñoo doon laaj ba la yàgg Modou nangu ngeen daw ragal a fi dugg léegi wala lan la. non du ragal du question ragal sax c'est liñ fay Modou moom lañ fayul booy bi rek. est que Modou mën ngeen tolloog moom kase. ah ñu jegeñ ko tuuti sax. mais fay que le 150 fay kii 80 mbala 70 du yoon nañ ko fay 100 mu bëre. loolu ngeen di wax daal mbala 130 sax moo tee combat bi taxaw de. Hmm. bu paree moom pare nañ moom. am na solo oui. gars yi 130 la 100 100 la ñuy laaj. ah waaw waxaaleel ba déggoo rek sëñ bi maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. yaa ngi xim baraado bi de. waaw ah, ngi si xim gi. <laughs> ana seen mbër mi ana Ama lu ko teree bëreeg Modou Lo. mu ngi si entraînement yi ah, li ko li ko tere kay mooy problème mu kase rek. suñu kilifa gee Jules Baldé wax na lépp Jules moom bu ne waaw rek ñu waaw bu ne déet ñu te xam na ni jaar na si làmb te vraiment li nga koy laaj si raisonnable li daal moo bëgg affaire tar damaa defe ne xëy na bëgg dafa bëggul dafa bëggul euh, gis un grand événement près mënu loo xam ne fi lu la Ama Baldé rek si stade loolu c'est autre chose réclamer. non moom duñ wax leen siy réclamer lu ñu ne cachet ba loolu ji la ko xam moo koy négocier ñun moom li ñu si xam mooy su neexee suñu borom lii Gilles di laaj bu ñu ko fayee su neexee yàlla na sumeeku wan ni Modou Lo gars yi dañ lay jay hmm. jay lañ koy def waaw. <laughs> waa Pikine a ngi noonu kon gaay yi Moussa ataaya jàngoongu Moussa léegi kon mbir mi jeex na dégg ngeen waa Pikine li ñu wax olof nag moo ne ku fóotal mbët roccil bar waa parcelle tamit dinañ ñëw ci ñoom ñu wax ndax ba tey olof da koy wax Moussa benn lay pàq la ñoom ne nañ ragaluñu Modou. nañ leen fay lu ko jar liggéey ngi dégg yeneen promoteur yaa ngi dégg waaye daal lig Nicolas moom l'homme des grands événements ah ñu ngi lay ñaanal yàlla combat bi comme ni nga ko démarché yàlla na nga ci yot ak jàmm tëgg ko te sandam bég ci ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu